asalaamaaleykum chers téléspectateurs xibaar 221 TV yéen ñiy seetaan ci xibaar 221 TV dal leen ak jàmm ci seen émission xibaar xibaar santé xibaar santé tey ma ci dalal kii di docteur Sidi Farba Faye nekk en l'Institut Pasteur bu Dakar tey ñu fas yéene waxtaanee lii di euh, variant Omicron docteur Sidi ñu bàyyil ak mbokki téléspectateurs xibaar 221 TV nga nuyoo ak ñoom. Euh, asalaamaaleykum waa Euh, ñu ngi nuyu ñëpp di lu seen teewaay fii euh, di waxtaan lu am solo loo xam ni moo lëmbe àdduna bi mooy euh, Covid bi di leen jaajëfal. docteur sama question bu njëkk xam naa mooy lii di nouveau variant bi li ko distingue ak les autres variants li fi jot am na variant bu bees boo xam ne ni mu ngi juddoo woon Afrique du Sud ñu tuddee ko Omicron. Euh, balaa moom nag am na yeneen yu ko jiitu woon muy euh, alpha bi ak beta bi ak euh, gàmma ak ak ak gamma delta nag moom moo gënoon siiw ndax delta moom moom àndoon nag dee yu bëree bëri bëri ak coono ak fitna boo su ngeen ko sax ci réew yu bëri ak fii ci Sénégal fii sax oxygène manqué woon na fii te gouvernement bi jot na sax yokk euh, capacité accueil yi maanaam yokk lal yi yokk euh, oxygène bi boo nit ñi mun ci ci jàll mais bi ñu jàllee ci delta bi nag dafa am beneen variant boo xam ne ni omicron la tudd euh, mu juddoo Afrique du Sud omicron boobu nag moom moom fi mu yegsee Euh, dafa fekk ñekk yi euh, nit ñu commencé ñekku surtout ci réewu tubaab yi euh, réew yi ñun ñuul comme Sénégal ñoom ñoo ñekk ñekkagul seen yi yu bëree bëri mais soo xoolee Omicron boobu moom variant mu njëkk bi ba un la tudd ba 1 xam naa nag tukkuleer yi ñoom duñ du tur boobu du leen neex ba ba numéro un ba numéro un mooy variant bu njëkk bi euh, waaw euh, euh, variant boobu nag soo ko seetloo moom daanaka mu ngi néew si doole am na beneen variant omicron bu tudd ba numéro deux maanaam rakki ba waaw ñoom ñoo bokk ndeeg baay ba numéro 2 boobu nag soo ko seetloo ci àdduna bi eh, daanaka juróomi yu nekk ci omicron eh, ba numéro 2 yi moo fi nekk kon moo lay won ni ba numéro 1 moom moo ëpp mais ba numéro bi jël terrain soo méngalee ba numéro 1 boobu ak ba numéro 2 boobu eh, ba numéro 1 bi moo ëpp ay mutation maanaam am na 14 différences yoo xam am na fukk ñeent fukk ak ñeent melokaan yoo xam ne nii wuute na ko ak ba numéro maanaam magam wuute nañ ay fukki melokaan maanaam euh, soo ko xoolee ci nit euh, kawar gi moo ko ëppale wala gën guddule wala tànk yi wala wala wala bët ci gën a gën a tuuti wala kee gën ko njool waaw nu mu ak nu mun demee daal mooy ba numéro 2 bi mooy rakk ji moom moo gën a gaaw law euh, ba numéro 1 wante nag ci soxoraay ak mun a Euh, loofal nit bu nga dem hôpital wala mu gën la euh, mu mun la rey ñoom ñoom ñoo ko euh, méngale te soo seetloo itamit ci variant yi am depuis bi Covid ñëwee ma fàttali leen ni virus moom ci dundam la bokk virus moom day day day day varie te soo xoolee Covid bi bu mu ñëw woon tey am na lu toll ci ñeenti junne varia variant wante yi ci gën a am solo mooy euh, yi ma leen tànnal noonu te bi ci mujj mooy omicron bi léegi ci omicron boobu euh, soo seetloo euh, ci ñàkk yi soo seetloo ci feebar yi soo seetloo ci li muy rey daanaka uute wante wuñu wante li ñu utante rek mooy ñàkk yi dafa fekk mu am léegi ñi ñi gën a ñàkku te soo ko seetloo ñi ñaa ngi wax ni omicron Euh, moom du reyee moom du du la sonnal soo xoolee semaine bi passé ci àdduna bi am na juróom ñaar fukk ak juróom ñu xam na ni euh, lor euh, ñàkk nañ seen bakkan te omicron bi moo leen rey kon ñi bu ñu réere mbir ni omicron bi dafay daf dafay loofal nit ki da koy yóbbu hôpital te mun na fekk mun na dem ba mu ñàkk bakkanam nit ñi buñ ko réere mbir wante li ci am solo bu am solo mooy euh, Sénégal fi mu toll nii ñun euh, am na ñu ci def gëstu waa ministère sax wax nañ ci euh, soo xoolee Sénégal yëpp ak foo ci mën a dem daanaka soo gisee téeméeri bu nekk daanaka lu gën a tuuti mooy juróom fukk ñett fukk ak juróom jot nañu am feebar bi mooy jot nañu am Covid wala ñu am ñàkk bi. Euh, yenn yi dëkk yi sax moom passé na juróom-ñeent fukk wala mu toll ci téeméer kon war na ne mooy wane ni euh, ci Sénégal fi mu nekk ni daanaka ñëpp a Covid waaw daanaka ñëpp Covid nañu te loolu nag euh, am na solo wante nag bum ñu tax a naagu ni mu amee solo mooy su nekkee ni jot nga am feebar bi te wulo soo amaatee beneen soo amaatee. Euh, mais nañ faire muy comme variant delta wala wala omicron mun na tax mu euh, néewal euh, sévérité bi maanaam gravité mu mu néewal ko wala sax mun na la ñàkk loot day dalay lay mais protection boobu aussi dafay ute ci variant yi parce que dañ seetlu ni su nekkee ni amoon nga feebar bi boobu ñàkkuwuloo maanaam nga am bi fi delta nekkee delta ngi fi bon tey maanaam nga am Covid delta euh, feebar bi nga jëkkoon a am bi nga xam ne ñëkkuwuloo su dañ seetlu ni téeméeri nit bu nekk euh, dana fexe li nga li nga feebaroon dina tax téeméeri ñu ñu nekk moom dina aar juróom-ñeent fukk yi kon téeméeri nit ñu nekk fukk rek fukk rek euh, ñoo ci feebar ci ñi nga xamoon ni ñàkkuñu woon te am feebar bi naturellement. mooy ci variant alpha beta gamma mais su nekkee omicron bi foofu la différence bi nekk moo leen woon omicron moo gën a euh, dangereux yeneen variant bi su nekk omicron la maanaam nga amoon euh, Covid bi te ñàkkuwuloo téeméer yu nekk moom juróom-benn fukki rek lay lay aar waaw juróom-benn fukki rek lay aar kon ñeent fukki yi ñoom dañuy feebar mais su nekkee ne amoon nga ko. Eh, ñu doon xaar ni link amoon mun na tax doo feebarati mais moom ñeent fukk yi ñoom dañuy feebar juróom benn fukk yi rek lay lay lay aar te soo seetoo yenn variant mooy comme delta yeneen yi ñoom euh, fukk yi rek ñooy feebar te day aar juróom-ñeent fukk moo lay woon ni omicron moom euh, ñi ñaa ngi koy xeeb naan du feebar du du du la du du la sonal mais omicron lu jara moytu la te buñ ci nàggu lan mooy lii di signes yi ak seen symptômes ak seen euh, durée d'incubation waaw durée d'incubation bi environ ay ñeent fukki waxtu la euh, ñeent fukki waxtu la maanaam su nekkee nii euh, daje nga ku feewar mu tisooli wala mu laal dara yow nga laal ko nga jot ci doomu jàngoro ji bala muy fen sa yaram dina lum ci dina mot ay ñeent fukki waxtu ñeent fukki ñeent fukki waxtu ay 40 heures Euh, mooy période d'incubation léegi nag euh, à partir de moment boobu mun nga commencer euh, di seram bi di tàng nga seram nga am nga yëg ay ay fatigue maanaam ay ndigal yu métti wante ci ci ci gàttal li ñu uute bëriwul daanaka ñoom ñoo am même même symptômes yi wante soo ko seetlu nag omicron yi ñu bëri ay ndigal ndigal yu métti la ñuy jàmbat wante nag euh, euh, li ñu uute daal euh, la bëriwul noonu bëriwul te dafa fekk omicron bi dafa fekk ñu bëri ñii am feebar bi ñii ñàkku ñàkku yi sax amagu ci solo parce que soo seetloo ñàkk yi Sénégal un million daanaka un million cinq cent mille loolu amul amul solo xanaa kay li ko. wàññi mooy euh, fekk na feebar bi law na Sénégal bu ñu bëri euh, jot ci te loolu dina am un niveau de euh, benn protection boo xam ne nii aar da da koy àndil mais ci gàttal daal période d'incubation bi ay ñeent fukki waxtu la te signes yi ak symptômes yi ngay yëg daal yëg-yëg yi taxu leen wute. lii di test bi ak vaccin bi mu ngi toujours efficace. laaj boobu am na solo euh, lu bëri ci ay euh, parce que li nga laaj dafa am solo soo xoolee variants yi dañuy am li ñuy wax ay mutation ay soppeeku te soppeeku yooyu dafa am solo ci yenn test comme test ñuy wax PCR te soo xoolee euh, Covid bi test yu gën a li ñu gën a óolu mooy test PCR yi te test PCR yi dafa am fu muy ay ay parties yu muy cible maanaam fi nga xamee ni foofu la virus bi di duggee ci ci ci sa doomu yaram yi te ci partie yooyu foofu la mutation yi di amee euh, fi di amee ute wante nag li ñu seetlu ba fi mu nekk nii mooy euh, muy variant alpha beeg ak omicron bi test PCR yi bon tey baax na fi mu nekk nii wante kañ li nga xam ne nii euh, wóoruñu mooy test rapide yi maanaam xam ngeen ni troisième vague bi mu ñëwee Euh, nit ñi doon test dafa bëri woon boo euh, Pasteur sax ñi ni dañ doon fanaan hôpitaux yi euh, ambulance yi du ñu yendal coono boobu ak ak ak ak logistique bi mu laajoon dafa dafa dafa diis ci ci ci waxtu yooyu la Pasteur waxtoon ak waxtaanoon ak ministre bi ba ñu xam nga Pasteur mu ngi defar ay test rapide léegi Pasteur moo joxoon test rapide yi ci ministère ministère yóbbu ko ci fi nga xam ne moom lañuy fajoo léegi nag léegi soo amee Covid foofu ngay dem léegi test yooyu la lay jox léegi nag xamuñu euh, ndax test yooyu bon tey euh, comme ni PCR bi nga xam ne nii moom mooy euh, bi bi ñu gën a ràññee ni mu ni mu mënee gis Omicron beeg yeneen yi leeraguñu nag fi mu nekk nii ndax test rapide yooyu. Euh, mun na euh, gis omicron yi muy BA1 bi ba bi ba numéro un bi ak ba ba numéro 2 bi te loolu gëstu ko dafa am solo parce que fi mu nekk nii euh, cas yu bëri yi ñuy déclaré dañ koy basé ci ci ci loolu te laaj na nag ñu fexe boo xam ndax jumtukaay yooyu ñu ngi dox ci ba numéro 1 bi ak ba numéro pour xam exactement ñaata cas la ñuy am. Euh, pour mun ko jégal waa waa OMS parce que xam ngeen OMS moom mooy euh, kuréel gi ci àdduna boo xam ne mooy saytu naka la feebar bi di lawee euh, lañ moo ci so soppeeku ak Omicron yi parce que ñoom ñu am nañ commission boo xam ne nii dañuy ñaax dëkk yi yëpp comme Sénégal ñuy xool yan ku am Covid ñu xool ban Covid nga am su nekkee alpha bi la wala Omicron bi la muy ba 1 bi wala ba bi wala su nekkee bu bees la ñoom ñu jël ay matukaay pour euh, ñaax ni ñi wax leen li ñu war a def. ndax euh, OMS euh, ban recommandation la ci indi. lim ci wax mooy omicron bi ñi ñi dañ yaakaar ni du sonal nit mais omicron bi day dal nit te su ko dalee mun na sévère mu dem hôpital te su demee hôpital mun na fa ñàkk bàkkanam OMS sax moo ni euh, semaine bi kii semaine bi passé am na juróom-ñaar fukki juróom ñoo xam ne nii euh, gaañu nañ te Omicron moo leen rey te soo xoolee aussi OMS euh, moo ni beneen vague mun na ñëw ak Omicron BA2 bi parce que ba mooy ba numéro bi mooy rakki ba ba ba ba ba bi taaw bi gis nañ à Europe de l'Est ay réew yu bëri kaa yaa ngi yokk foofu kaa yaa ngi yokk foofu Euh, te gis nañ yeneen réew yi aussi euh, cas yaa ngi yokk foofu te ñoom ñàkk woon nañu te li gën a tiital OMS mooy réew yu bëri si tuuti tubaab yi nga xam ci boori Europe de l'Ouest euh, ak ay France sax ñu ngi koy waaj ak Amérique ñoom ñu ngi waaj a dina mesure barrière muy masque yeeg distanciation yeeg dañuy daje daje lu bëri OMS nee na loolu daf daf daf daf daf ko tiital te OMS mu ngi ñaax nit ñi ne euh, omicron bi moom euh, moo gën a moo yeneen kii ñoo ñoo ñoo yem ci ci ci ci ci danger ñoo yem ci danger te te omicron bi mi ba ba ba numéro 2 bi surtout rakk yi ba un bi moom ni muy lawee moo ëpp ba numéro 1 bi te moo gën a euh, gaaw a law que delta bi te delta bi ni mu daan reyee noonu lay reyee di ñaax nit ñi nag. OMS ñi ñi gën a dem ñàkku ji surtout ñun réewu Afrique nga xam ne nii daanaka Sénégal soo gisee un million cinq cent mille te ay seize millions la ñu euh, xanaa li ñu may chance sax mooy daanaka ñëpp Covid nañu te loolu aussi 60 pour cent la protection su nekkee euh, Omicron laaj na ñëpp xam ko nit ñi dañ yaakaar ne soo Covidee rek euh, moom yeneen yow pare nga si soo doo amati Covid te wane nañ ni soo Covidee Omicron bi téeméer yu nekk 60 pour cent yi rek la la lay protéger. kon laaj na ñit ñi di ñàkku mais ñi nga xam ne sax ñàkku nañu ñaari yoon dañ leen di ñaax ñu dem ñàkk ci waat def euh, euh, rappel. Euh, nouveau variant bi mooy doon jeexantalu variant maanaam fi la variant di jeexe wala fin pandémie. OMS si li mu ñaax mooy variant omicron bi du nekk variant bu mujj bi parce que xool nañ omicron bi mu ñëwee foogoon nañu mooy dernier variant mais ci biir omicron ci boppam Euh, variant bu njëkk bi mooy euh, ba numéro un maanaam mooy mooy euh, taaw bi kooku juraat beneen variant bu tudd ba numéro deux kooku nag moo gën a gaaw a law ba numéro un bi te ni muy loree noonu la delta bi di loree même ba numéro un bi sax am na beneen lakk moo lay won ne pandémie bi yemagul fii te variant yi yemagul fii xanaa kañ li ñuy ñaan mooy variant yi ñëw gën a néew doole variant omicron yi wala variant delta yi mais à la kulli aal moom vaillant yi moom du yem fii vaillant yi moom du yem fii te euh, épidémie bi euh, yaakaar mu yem fii li ñu ñaax nit ñi mooy ñu dem ñàkku ji nañ dem ñàkku ji te di continuer barrière yi ki euh, mesure barrière muy distanciation un mètre yi ak masque yi di moytu mbooloo mi rassemblement yu bëri yi te su ñu nekkee ci néeg aussi ñuy ubbi fenêtre yi wala di wut ventilateur loolu am na ci solo te di aussi euh, gel yi bu ñu fàtte gel yi su amul gel ngay raxasu yooyu war nañ di ko continuer te bañ ko bàyyi loolu la OMS wax. askan wi lan nga leen di ñaaxaat ndax dafa mel ni askan wi dañoo xaw a suufeel lii di euh, nouveau variant bi. xam nga ñun ci Sénégal la nekk ci dëkk bu organisé la ñu nekk ministre de la santé dafa am kuréel goo xam ne nii euh, moom mooy daje. Euh, di xool naka la feebar bi di euh, naka la feebar mel ci waxtu woowa ñoom ñu joxe li nga xam ne ni moom la Sénégal laaj euh, ay citoyens yaakaar naa ñoom weer yi ñëw dinañ daje pour ñaax ni ñi jox leen ay ay ay ay ay matukaay mais li ma ci wax mooy. feebar bi jógee gu fi te omicron bi euh, BA1 bi ak BA2 bi sax moo gën a gaaw BA1 bi ba ba numéro 2 bi moo gën a gaaw ko ba numéro 1 bi te moom ni ak delta bi nga xam ne moom la ñuy gënoon ragal ni muy euh, lore nit ni muy gën a de gën a gaaw te ni muy reyee nit noonu lay reyee ma fàttali leen ni semaine bi passé rek euh, juróom-ñaar fukk juróomi nit dee nañu te omicron moo leen rey léegi nit ñi dañ dem ñàkku ji dëgg la ñu bëri Covid nañu Sénégal mais Covid du tax nga. aaru ah ci ci ci ci ci ci ci ci euh, ci ci omi omicron bi parce que wax naa leen que omicron bi kii euh, euh, infection naturelle maanaam nga am Covid 60 pour cent rek lay protéger nit ñi laaj na nag nit ñi dem en masse dem ñàkku ñàkk yaa ngi fi nañu dem ñàkk même su nekkee ne am nga ñàkk sax benn dose ak ñaari dose léegi autorisé nañu ñu def troisième rappel waaw. kon Sénégal yi nga xam ne nii ñàkkuñu nañ dem ñàkku ñi nga xam ne sax ñàkku nañu ñaari dose nañ dem defi rappel ñi nga xam ne aussi benn dose dañuy jël nañ fexe dem def euh, ñaareelu dose ba te nag masque yi buñ ko bàyyi masque buñ ko bàyyi ak respecter distance un mètre yi encore euh, nañ moytu rassemblement yi nañ moytu rassemblement yi te su nekkee ci néeg yi nekk aussi nekk fa ay ñaar ñetti ñeent nit nañ fexe ubbi fenêtre yi def ay euh, ventilateur loolu mooy euh, message bi ñuy laajte te koo xam ne ni aussi dégg nga ko ñaax ci sa morom gis nañu nag léegi nit ñi dañ ko néewal doole parce que demee ci mbedd mi ci kaar yeeg fépp ñu ñi bàyyi nañu masque bi mais loolu moom yaakaar naa erreur la feebar bi jógewu fi. li ñu cëralee woon ci waxtu jeex na tàkk léegi looy tàgg tàggatoo. waaw di di kontaan rek euh, di leen euh, sant di leen gërëm ndax jamono yi ñu toll kuy yëngu ci wërgu yaram kuy yëngu ci. Euh, jàngal nit ñi lan mooy euh, wërgu yaram surtout Covid bi nga xam ne nii mu ngi sonal ñu bëri te ñu bëri am na loo xam ne ñu bëri sax gëmuñ ne feebar bi am na ñu bëri gëmuñu ko euh, ñu bari dañ naan soo leen waxee Covid ñu ne ah Covid amul Covid tubaab yi tu feebaru tubaab yi la. di wax nit ñi ne euh, Covid feebar bu am la te mu ngi fi te jógeegu fi léegi nag mesures barrières nekk di ci respecté di leen sant di leen gërëm ci seen liggéey bi rafet di la ñaanal aussi yàlla may leen euh, avancement euh, ba ñëpp gis ràññee jàpp. et di topp aussi li ngeen di yee ñi ñi ci mbirum wërgu yaram jaa ngeen jëf. chers téléspectateurs l' émission tire à sa fin xanaa rek di jaajëfal sama docteur si di far ba Faye di ko jaajëfal lu bëree bëri di jaajëfal sama caméraman fàlloo Touré euh, di leen jox dig daje ci beneen émission ci beneen numéro.